يدي في الأداء البيع والمداد هلا وسهلا وترهبا للأعداد يا خير لي في الأداء البيع والمداد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 ci téere bi nuy wax xuratul ayn kem nañu ko baaxoo ak yéen ci weeru koor sëriñ bi dafa wax ni guddi gi njëkk ci weeru koor ku ca julli fukki rakka rakka bu ci ne nga jàng ca faatiha benn yoon inaa anzalnaahu ak qul yaa ayyuhal kaafiruun ak suuratul ixlaas lu ci ne ñaari yoon fatiha benn yoon ina angel basaar wa jeex ñaari ñaari yoon qul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari yoon qul huwa allahu ahad ñaari yoon kon loolu mooy julli gi mu nekk juróomi sëlmal nee na loolu ku ko def suñu boroom dina la musal ci sawara te itam Bo ñaané sa soxla sa aajo suñu borom dina la ko defal kon julli gàngoog yalla nañ ko suñu borom man loo te def ko te def ko nim ko bëggee mu nangul ñako ko fulal ñu fa yaq eggul bi barkat cheikh al khadim Hey, buddy. على وسلم وعد هبا